الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñëwaat nañ tey jii ci guddi ajuma yi juróom ñaari fan ci weeru gàmm ñu dajawaat fii ci néegu yàlla bii di masjidu nuur ngir nafar ak yéen suñ bind bi ñu tàmm am fii ci guddi ajuma gu nekk di ko amee ci téere nitu yàlla ku màgg kii ñu tuddee docteur Saïd Hawa téereem bi mu tuddee jundulaay thaqafatan wa axlaqan te mooy soldaaru yàlla bi lan la war a xam waaye solda soldaaru yàlla bi nan la war a mel ñun nag ñu ngi nafar ak yéen ci soldaaru yàlla bi ni mu war a mel ndax dañu seetlu ne ni soldaaru yàlla bi war a xam fi ko fi mu ko war a xame mën a xame bari na waaye ni mu war a mel moom moo moo xaw a tumuranke ndax jullit yu bari toppatoo wuñu ko ni ñu ko war a toppatooyee biñ ñëwee ci soldaaru yàlla bi ni mu war a mel dañu dem ci alxuraan borom bi ci boppam moom moo ñu wax kan mooy soldaaru yàlla bi yan jikko la war a am mu wax ñu ko sóoratu mayida ak sóoratu mujaadala mu wane ne soldaar yàlla bi eh, dafa war a nekk koo xam ne day farag yàlla day day nangu péete day farag yàlla farag yonent bi farag jullit yi day fexe ba bëgg yàlla yàlla bëgg ko dafay nooy ci jullit ñi waaye dafay dafay sévère ci ñi dul jullit ba duñ ko ñemee tooñ mu nangoo jihaad fi sabilillah muy juróomi jikko yoo xam ne yu am am solo la boobu ba léegi nag ñu ngi ci ñaareelu jikko bi te mooy nan lañuy def ba yàlla bëgg ñu ñu bëgg li njëkk a def mooy fexe bay ba bañ a bokk ci ñi bañ ñu wone woon jikko yu nga xam ne ku ko jikkoo yàlla bañ na la ndax ñu man koo moytu ba tàmbali woon jikko yi nga xam ne ku ko jikkoo yàlla bëgg la ba àgg ci jikkoy ragal yàlla ñu yàgg ci lool ndax daf ko daf ko laaj ndax ragal yàlla mooy jikko ji nga xam ne moom dong la yàlla nangu mooy jikko ji ñuy natte gënante jikko ji ñuy natte gënante mooy ragal yàlla moom dong la yàlla nangu mu nangu mu nekk nattukaayu gënante inna akramakum indallahi atqaakum mu mel ni nag jëkk jooju jullitu sénégalais yi dafa mel ni ñu bari ci ñoom nangu ñoo wax mooy lan ñu mel ni ragal yàlla dafa nekk luñ munta xam ki ragal yàlla itam nekk kuñ munta xam loolu loolu wérul parce que yàlla du jël jikko ju ju réye noonu ne moom rek la nangu mu nekk nattukaay bi ñuy gënante ba pare mu nekk jikko bu ñu mënta xam ankay ah, mën nañ koo xam loolu moo tax borom bi xamal ñu ko ci alxuraan xamal ñu ko ci juróom benni bërëb juróomi béréb yépp jaar nañ ci tey jii ñu ñëw di àgg si ci juróom benneelu béréb bi nga xam ni borom bi wax nañ ci ki ragal yàlla mooy kan ko dee ñu bàyyi ko xel ndax suñ ca jógee mën a góor góorlu ba bokk ci ñi ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ci suuraat <coughs> maa ngi jégalu suuraat zaariyaat aaya fukk ak juróom ñeent lan la wax innal muttaqiin fi jannatin wa uyun axidina ma aataahum rabbuhum innahum kaanu qabla dalika muxsinin kaanu qalilan min alleyli ma yahjacuun wa bil asxaari hum yastaxfiruun wa fi amwaalihim xaqun lissaa'ili wal maxruum mu ne ñi ragal yàlla ñi ngi ci àjjana ñu ngi ci àjjana yi ak sewnde yi ay xuru xur yu xur yu ama am solo yu nekk ci biir àjjana ñooy uyuun ay xuru lem xuru meew ni ko ni ko ni ko nettalee ci ci yenn texte yi ñoom aaxidiina ma aataahum rabbuhum ñoom buñ duggee àjjana danañu jot li leen seen borom jox li seen borom waxoon ne ku dugg àjjana am ko danañ ko fekk ñu ragal yàlla buñ duggee àjjana danañ fekk ci àjjana danañ leen jox ci àjjana li leen seen boroom digoon lu leen may loolu innahum kaanu qabla dalika muhsinin dañoo nekkoon lu jiitu ñuy dugg àjjana di ñu rafetal dañ naan rafetal bokk na ci li leen dugal àjjana mooy rafetal kaanu qalilan min al-layli maa yahjaun daawuñu xaran guddi lu daawuñu nelaw guddi ba yan lu bëri daawuñu nelaw guddi ba yàndoor lu bari wa bil asxaari hum yastaghfiruun buñ demee ba njël nag ñu commencé jéggulu yàlla kon dañ daan naafile guddi gi di jéggulu yàlla njël asaxaar mooy waxtu wi jiitu fajar wa fi amwaali li xaqun li saayili wal mahrum seen alal ji daanañ ko nangoo bokk ak seeni mbokk daanañ ko nangoo bokk ak ñi ko ñu ko yàlla xañ kon eh, juróom-benneelu bërëb bi nga xam ne suñu boroom wax nañ ci lan mooy ragal yàlla mooy bii bii ci soortu Zaariyaat biñ ñëwee gis nañ fi lan la lan la fii dolli lan la fii dolli ci ko jiitu lim njëkk a wax mooy innahum kaanu xabla dalika muxsinin dañ daan rafetal rafetal moom tuddoon nañ ko bi ñuy joxee définition ci ñeenteelu bërëb bi waxoon nañ lan mooy ihsaan lan mooy rafetal rafetal sa diggante ak sa borom rafetal sa digganteeg sa morom ñu waxoon na rafetal ci ponki gëm yàlla yi la bokk ndax gëm yàlla wala lislaam imaan la ak islaam ak ihsaan waxoon nañ ko kon mën nañoo doyloo lañ ci waxoon bañ ca tolloo waaye mu teg ci kaanu qalilan min al-layli maa yahjaun mooy daawuñu nelaw guddi lu bari soxna Aïcha nee na kaana annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaquumu min alleyli xatta tatafattar qadamaahu nee na yont bi daana naafile guddi ba tànkam yi xar fa qultu lahu ma ne ko li ma tasnau hada ya rasulallah sang bi lu tax lu lu ko fi jar waqad gufir wa qad xufira laka ma taqaddama min zanbika wa ma taaxara xanaa du yow yaa wax ne yàlla jéggal na la sa bàkkaar yu njëkk yeeg yu mujj nee na ma wax ko fi jar fi jar ngay naafilewaat ba sa tànk yi di xar wax ne yàlla jéggal na la sa bàkkaar yu njëkk yu mujj qaal afala akunu abdan shakuran xanaa du sant yàlla sant yàlla gore parce que loolu du sama mérite du mérite mu ma am ba yàlla baal ma sama bakkaar yu njëkk yi mujj da koo neex rek mu defal ma ko man ko nag damaa war a gore xanaa duma gore ba delloo ko njukkal su ma defalee lu ma ko lu ma ko laajut su ma defalee lu ma ko lu ma méritool ma war koo defal lu ëpp li ma sas yenu maanaa su ma defalee lu ma méritowul ma war koo defal lu ëpp li ma sas afala akuna abdan shakura Salim ibnu Abdillah ibnu Amar ibnu Alxataab radiallahu taala anhu jële na ci baayam Amar ibnu Xataab anna rasulallahi qaal nicma rajulu abdullahi law kaana yusalli bil min alleyl yonent bi nee na waa ju baaxoo ngi nii waa ji naroon a baax a ngi nii bu doon naafila guddi waxin la nicma rajul abdullahi abdullahi ibnu Amar yant bi moo ko xool ne ko ne waa ji naroon a ngi baax a ngi nii bu doon naafi la guddi daf ko daf ñaax la façon la ci ñaax ko ne ko bu fekkoon ne sa yëtte ji sa jaamu yàlla yi boole nga ci naafi la guddi kon kenn du la gën loolu jur qaala Salim fa kaana abdullahi baada dalika laa yanaamu min al-layli illaa qaliila loola ba ko déggee la bàyyee nelaw guddi duutu nelaw guddi lu dul lu tuuti aw loolu tam loolu tam loolu tam lu am solo la xadis bi imaam Buxaari bind na ko jële ko ci Xafsa umul mumin soxna Afisa Xafsa moo ko dégg ci yant bi ndax kon Abdullah ibnu Amar yant bi daf ko ne soo ku naroon na baax nga boo doon naa fi la guddi mu dégg loolu moom tam comme daa bëgg a baax mu bàyyi bu bàyyi na la guddi du na loo lu dul lu tuuti ci guddi Xudayfa radiyallahu taala anhu nee na صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى xudayfa nee na dafa am benn bis xaw ma lu ma doon def rek ba yont bi jóg di naafila ma ànd ak moom misaal waxin la yont bi di naafila rek ma jóg ànd ak moom mu jàng faate rek dal bu bopp baqara bàq baqara mu dal borom mu ne xam naa bu amee téeméer aaya rukkoo yonent bi continue ma ne ah, kon dafa bëgg a naafila baqara c'est-à-dire da koy xaaj di ko dagg mu jeexal baqara dal al imran soo dem nisaa yi jàng ko ba mu jeex jàng al imran ba mu jeex di ko jàng njàng mu dal nag jàng mu dal moo xam ne bu àggee ci aaya bu bu yàlla digle sàbbaal mu sàbbaal bu àggee ci aaya bu yàlla digle ku ko ñaan mu ñaan bu àggee ci aaya bu yàlla digle ku ko muslu mu muslu ko summa raka mu door rukkoo mu door rukkoo kon jàng na baqara jàng ali imran jàng sortu nisaay bi mu rukkooee mu ne subhaana rabbiyal azimi mu jàng subhaana rabbiyal azimi lu toll ni lim taxawoon jàng baqara ak ali imran suurat nisaa ci rukkoo subhaana rabbiyal azim fa kaana rukuuhu naxwan min qiyaami nee na rukkoo bi yàggee ne nii taxawaay bi yàgg woon ah bi mu ko defee summa qaal samia allahu liman xamida rabbana laka alhamdu yant bi ne sami allahu liman hamida daal cay teg rabbana lakal hamd mu taxaw fa digga avant muy rukkoo ji avant muy sujjóoti mu taxaw foofu lu tol ni li mu rukkoo woon summa qaama tawilan qariban kama mimma raka nee na mu taxaw foofu lu toll lu xaw a jege diir bi mu rukkoo woon summa sajada mu door a sujjóot bi daal di ne subhaana rabbi al aala fa kaana sujuduhu qariban min qiyami nee na sujud bi tam nag daanaka xaw naa toll ni lim taxawoon jàng baqara ak ali imran ak sortu nisaa yi xadis bi imaam muslim moo ko bind kon yonent bi salaa salaam daana julli guddi julli gu gudd a gudd te yàgg daana julli guddi julli gu gudd gudd gudd te yàgg euh, lu tax mu mën loolu parce que léegi moom boppam dong la engagé loolu moo wuutale julli guddi walla julli naafila ak julli farata julli farata boo ko jiitee da dangay da bàyyi xel ñi ngay jiite doo topp sa bànneex ci li ngay jàng doo topp ala alxuraan ju mokkal wala ju neex ba fàtte ne am na ci ñi la topp ñoo xam ne taxawaay bi arrangé wu leen paa yi léegi mënuñoo taxaw di yàgg te léegi dañoo am da waru taxaw bu ñuy julli bu fekkee mën nañ ko su fekkee mën nañoo taxaw jàng faate jàng saar wu gàtt wala ñetti aaya seen julli baax kon suñ toppee ci yow waru loo leen xañ loolu waruloo leen yóbbu ci julli goo xam ne day tax ñoom ñu ber seen julli bopp ba duñ am tiyaaba julli mbooloo moo tax yonent bi salaasam bu bi bi biñ ko biñ ko booleeg biñ ko booleeg waaye soosu doon guddal julli gi ko ne ndax dangaa bëgg a sonal julli ko boo jiitee te nga na nga gàttal ndax ku nekk nekk sa gannaaw bu dee naafile nag jàngal lu la neex taxawal ba mu neex la bu la neexee guddi gi yëpp nga def ko ñaar rakk parce que yow rek la loolu moo mooy moo mbirum naafil hada huwa alxaalu al akmal lil muttaqina fi qiyaamihim min al leyli wa tahajjudihim wa ida lam yastati al insan an yuxaqiqa al xadd al aala fal yuxaqiq la mu ne lii nag mooy julli guddi gi gën a mat kon du ñépp a ko man soo ko mënul mën defal li nga man même boo mënee ñaar rakk ci julli gi yoo xam ne ñaar saar yu gàtt ngay jàng def ko du tee mu nekk julli guddi mooy mooy taajut julli guddi ak taajut mooy julli goo xam ne danga nelaw tuuti door ko door a yeewu julli ko parce que moo gën a jafe julli goo xam ne bi nga koy julli te dëggoo la bala ngay tëdd lu baax la mais ñu bëri mën nañ ko li jafe mooy tëdd ba ci yàgg nga ngay yeewu jóg naafila te fekk nga sonn te fekk nga gëmmentu feebaruloo bëri woo ay bor waaw ah, parce que léeg-léeg feebar ak bëri bor dana tax doo mën a nelaw nga ne comme bala ma fay yàq sama nelaw yi naa ñëw naafila waxuñ naafila boobu naafila bi ñuy wax dëgg mooy boo xam ne dangaa gëmmentu mën a nelaw feebaruloo bariwoo ay bor jaaxle woo amuloo insomnie amuloo ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu nee na yonent bi nee na man naama an xisbihi aw an cheyin minhu fa qara'ahu fi ma bayna salaati alfajri wa salaati alzuhri kutiba lahu ka annama qara'ahu min alleyli yonent bi nee na sidna Omar nee na yonent bi nee na ku sas sa bopp ay naafi la dogu naafi la boo sas sa bopp ñeenti rakka ñaari rakka juróom-benn rakka juróom-ñetti rakka yaa xam yow daal sas na sa bopp guddi gu nekk da nga góorlu ba yowu ci balaa fajar jot nga yewu julli am ab limu rakka balaa fajar jot nga sas ko sa bopp léegi nag am bis boo xam ne. dangaa biddanti dangaa biddanti biddanti bii li ma ci jublu mooy bi ngay yeewu fekk fajar jot na fekk julli suba jot na bu julli suba jotee kenn du naafilaati yonent bi nee na soo jullee suba ba pare nga xaar ba jant bi fenk ba am fanweeri minute nga fay bor boobu daa mel ni julli nga ko ci heure bi nga julli kon naafila yi yi nga sas yi nga am dogu wérdi yi nga am dogu wérdi yi nga sas sa bopp boo ci fàtte mën nga koo fay soo ko fayee danga nga am tiyaabooy def ko ci ërëm loolu rek la la yent bi ko wax amma allah yakuna lil muslim shay'un min al-laymi fa dhalika hijran su fekkee nag yow doo julli yàlla da laa natt mun loo julli dara ci guddi gi ndax bis bu nekk bala ngaa jóg fekk ñu ñu ne asalaatu xayru mina nawm nga xam ne naafila xaju fi su la yàlla na too loolu bi nee na li nga def mooy hijraan mooy da ngaa gàddaay julli guddi yàlla ni ci yàlla musal abdullahi ibnu mas'ud nee na yonent bi neena walla neena nee na dukira inda nabii sallallahu alayhi wa sallam rajul rajulun naama laylahu xata asbax qaal dalika rajulun baala shaytaanu fi udunay dafa am benn bis ñu wax ko benn waay boo xam ne dafa nelaw guddi gi yépp ba bët set ba bët set nga xam ne julli suba gisaat da koo fay yonent bi ne kooku seytaane moo saw ci ay noppam moo tax munte yewu seytaane moo saw ci ay noppam moo tax munte yewu Abu Hurayra nee na yonent bi salaasam nee na yaaqidu sheytaanu ala xaafiyati rasi ahadikum ida huwa naam thalaatha oqat yadrib ala kulli oq nee na yonent bi nee na ku tëdd seytaane da lay ñetti buum yoo xam ne ñooy dox sa diggante ak yeewu julli suba nee na boo yeewoo mu wóor la ne léegi julli suba jot benn buum bi dagg na soo diis diisul waaye nga ne bërët dem jàppi geneen buum gi dagg na soo taxawee ci sa digg ëtt walla nga dem ci jàkk ja ne allahu akbar geneen buum gi dagg na fa na nashitan tayiban nafs bis boobu da ngay sawar boo ko seetloo bëccëg bi yëpp da ngay sawar wa illa asbaha xabithan nafsi kaslan boo biddantee dangay ngay tayal ku mu neex nga seet ko ku yàgga julli suba ci heure am bis boo biddantee bëccëg bëccëg bi yëpp da koy tayal loolu yonti boo ko wax loolu yonti moo ko wax kon euh, ñi nga xam ne dañuy julli guddi bokk na ñu ragal yàlla mooy ñiy julli guddi kon ko bëgg a bokk ci ñi ragal yàlla góor góorlul bay julli guddi lu mu tuut tuuti baax na même bu dee ñaar rakk lu jiitu julli fajar baax na léegi mu waxaat ci aay bi wa bil asxaari hum yastaghfiruun ñi ragal yàlla dañuy yewu njël di jéggulu yàlla kon dañuy yewu lu jiitu njël julli guddi bu ko di pare jël jot jël mooy waxtu wi jiitu fajar ñu jég ñu yor seen kurus di jégul yàlla su fekkee ñu yor kurus la bu bu fekkee mënuñu yor kurus bu ñu ko mënee def seen baaram ba tey baax na waaye daal nañu nañu nañu jégul yàlla bu la neexee ñu bañ ñu bañ a wut lim di di jégulu rek di wax astaghfirullah astaghfirullah waaw kon jégul yàlla dafa bokk ci màndargay ragal yàlla ndax képp koo xam ne yeewu nga ci guddi gi naafila guddi njël jot nga jégalu yàlla kooku ñaare li ko julli suba di raw bariwul kooku ñaare li ko julli suba di raw bariwut moo tax ñu bari nee nañ eh, bàkkaar boo mën a def lu mu rëy rëy soo ko jéggaloo njël yàlla jéggal la ko parce que yàllaa ngi nii di tagg ñi nga xam ne dañ koy jéggalu njël njël la wax moo tax yont yàlla yaaqub ba doomam yee jóge Égypte te gindeeku ak yont yàlla yuusuf xam ne dañoo juumoon ci jéem gi ñu doon jéem a rey yuusuf ñu ne seen baay na na leen bàllul yàlla ndax xam nañ ne seen bàyyi ab yonent la seen bàyyi def na leen danaa leen jéggalul mais waxu leen ban heure borom tafsir yu bari dañu wax ne da njël la doon xaar parce que xam na xamoon na ne bakkaaru njël ku ko jéggalu yàlla jéggal ko kon njël am na solo kum neex itam jël limu astaghfirullah astaghfirullah ñi nga xam ne dañuy wàññi araf yi dañ wax ne 1947 la mille 1947 donc soo ko jégguloo njël lu am am solo la waaw soo ko mënee def njël balaa fajar ngay def astaghfirullah 1947 lu am am solo la waaw kon bàyyi ko xel mu teg ci ne wa fi amwaalim xaqun lissaili wal mahrum am na feneen fu wax xaqun maalum ñaar yi leen wutale fee alxuraanu xaqun maalum mooy azaka fii xaqun rek la lissail fii tënk ko parce que naafile la gis nga fii borom bi mi ngi ñaaxaate ci naafile ci alal waaw naafila ci alal am na solo de la alal dafa am solo naafi la yépp am solo ndax la mooy li nga xam ni yow yaa coobarewu def ko ci sa bànneexu bakkan nga ko maa ngi wax bànneex ci sa bëgg-bëggu xol nga ko defe du parce que parce que farata yi boo ko deful doo nekk jullit doo bokk ci jullit amuloo ci choix da koy def bokk ci jullit ñi defuloo ko bokkuloo ci jullit naafila nag yow yaa bëgg a mat jullit moo tax mu am sol moo tax ku ko def da ngay bari tiyaabo mën nga cee amee tiyaabo joodul amee ci farata yi <coughs> ma wax naa ko fi ay yoon yoon naafila yépp nag bala moo mat bala moo tudd naafila farata ju wér jiitu farata ju wér da koy jiitu julli boo ci naafilaayee te te farata ju wér jiitoo ko naa amuloo naafila farata ju wér nag moom dafa yaatu mooy da ko julli ci waxtu da ko julli ci sart julli waaw sart yi jiitu julli ak charte yi ci biir julli waaw da ko julli ci waxtu respecté charte yi jiitu julli respecte charte yi ci biir julli ba pare teewlu dafa bari ay ba pare defe ko ci mbooloo moo gën ndax moo ëpp tiyaab su boobaa nag boo loo naafilaati yaa ko moom loo naafilaati yaa ko moom parce que yore loo kenn bor mais su sa julli farata matut mun loo naafil mun loo naafila parce que ku am bor du maye du maye ba mu des alal alal mën nga cee naafila te defuloo farata ndax faratay alal mi ngi war ki am nisaab mu ngi war ki bokk ci ñi am alal ñi riche ñi charia wax ne dañoo am alal mooy ñi am lu mën a jënd quatre quatre vingt cinq grammes wurus quatre vingt cinq grammes wurus li ko mën a jënd ku ko am denc ko ci bërëb di faj say soxla ren ba déwante laaluloo ko charia nee na yow ci ñaamalal nga bokk léegi kon nag génneel asaka kon nag da ngay kooku mooy génn asaka ku ku ku ku àggul foofu rek asaka waru la man ngaa sax lekk asaka man ngaa sax lekk asaka waaye kooku mën naa naafila même bu dee ñaari dërëm ngay am ci bis bu la neexee nga saraxe dërëm bi kon naafila ci alal mën nga ko def te defuloo farate ndax farata jooru la loolu moo tax naafila ci alal am solo moo tax mu bari tiyaabo ak a bëri surtout rawatina nag bu jamono méttee rawatina bu jamono méttee comme fii jamono tool nii tembe nii nga xam ne famille yu bëree bëri mënatuñoo amal añ ak ndékki lu mat ñu bëri ci famille yi mënatuñ ko bala nga koy xam nga dem ci quartier populaire yi ba gis heure bu heure bi diggante timis ak gee ñuy jaay euh, sunguf ñuy jaay bëgguma wax sunguf cere laa bëgg wax ñiy bàyyi ñiy jaay cere ak ak araw ah ak càgg dafa mel ni kër yëpp foofu la foofu lañu jënd si parce que pratiquement kër yi togguñu reer kër yu bëri togguñu reer donc kenn ku ne mooy lijjanti boppam lu mu reere soit nga dem jënd cere ji ñoom mun naam am nga meew def ci mun naa am doo meew nga def ci soow walla nga nga seet nga tooyal ko def lekk ah fonde voilà fonde bi tam fonde bi mooy jël aaro am na ñoo xam ne fonde lañ jënd am na ñoo xam ne dañuy jënd aaro fonde ci gàttal daal mooy dëkk bi moom métti dëkk bi nag mu tolloo foofu kon képp ku nangoo bokk waa dëkk bi li nga am tiyaabu ju bëree bëri ñu ko am kon léegi mën nañoo wax ni agsi nañ ci juróom-benneelu bërëb bi nga xam ni alxuraan ñëw na fa di ñu wax lan mooy ragal yàlla teewul nag am na yeneen bërëb yu yàlla tudd ay jëf yoo xam ne ñu ragal yàlla ñoo ko jëf waaw lu mel ni aaya bi ñëw ci suurat suurat al aaya ñaari téeméer ak benn inna alladina taqaw ida massahum taifum min alcheytaani tadakkaru fa ida hum mublisun léegi yàlla tudd na feneen beneen jikko boo xam ne ñi ragal yàlla ñoo ko jikkoo mooy ñoo xam ne bu leen seytaane duggee bu seytaane bëggee yàq seen xel ñu fàttaliku ne yàlla waxoon na leen ne dañ ko moytu ci si ñu daal koy daq daldi di dellu ci ndigal yàlla yi wala ñu bàyyi tere yi kon bokk na ci ñi ragal yàlla ñoo xam ne fu leen seytaane ne ërtëb ci saasi ñu xàmmee ko dañ koy daal di xàmmee daldi xam ne seen noon la ah yàlla mooy ko ah seytaane seen noonu la noonu la leen jàppee jàppe leen ko noonu kon bokk na ci jikko yi ñu ragal yàlla dañuy xàmmee seytaane yi ba bu bëggee yàq seen xel rek ñu daal di koy lànk na ko jógal dugal foofu daal koy dàq daal di dellu ci li leen yàlla santoon bu dee lum leen digaloon ñu def ko bu dee lum leen teroon ñu bàyyi ko nettali naa leen fii ne seytaane ku naqaree mucc la ndax à chaque fois day soppi doxalin day soppi doxalin état boo toll rek day day day jël stratégie bu dëppook état boobu am na ñoo xam ne du leen xaar ci bérébu fowukaay yi parce que duñ fa dem am na ñoo xam ne du leen xaar Sorano jamais grand théâtre du fa du leen fa xaar parce xam ne duñ fa ñëw wala boog buñ fa ñëwee lu raara fi indi xanaa benn concours alxuraan wala yu mel noonu moo tax du moo tax fañ nekk la leen di fekk jàkk yi la leen fekk ci jàkk yi la fekk fexe ba duñ ñëw ci jàkk yi ndax yàlla ngir yàlla parce que loolu tam buñ ko bu ko réussir réussir na li mu doon wax soit mu fekk la Sorano euh, rafetal la la ko wax la ne toogal fii ba mu ba mu yàgg àdduna bii lay jeex lee mu jeex te noosa ko fi lu bëri loo noos doyut waaw baatareel xaalis bi ci sa poche bi baatare ko ñu xam ne doom moroomu gars yi bu bu fekkee yow doo dem Sorano jàkk ngay dem ci jàkk lay fekk kon seytaane dem dafay changer stratégie kon yàlla ngi tudd ne ñi ragal yàlla bokk na ci ñoom ñu xam ne ñoom dañuy xàmmee seytaane Abdul Qadir Jaylaani radiallahu taala anhu wax nañ ne mas naa dugg xalwa mooy beru di jaamu yàlla ba ci yàgg mu dégg ku ko ne Abdul Qadir léegi araa daganal naa ci yow lépp lu ma araamaloon ci yow Abdou Khadr tey ci tey kontaan naa ci yow lool gërëm naa la bëgg naa ci yow ba tax na daganal naa ci yow lépp lu ma araamaloon ci yow Abdou Khadr ne tekk bi jàgg mu ne ko tuug jógal foofu nga naa ma daganal naa ci yow yow da am loo may daganal ba may tuug iblis xam ne xamee na ko parce que xam ne iblis la mu mu ne ko mu ne ko waaye yow saay yow yow nga de noo def ba xàmme ma noo def ba xàmme ma mu ne ko bi ngay wax ak man benn benn boor laa la déggee bu doon sama borom laay wax mooy wax ak man sama lépp koy yëg sama lépp koy dégg parce que ma borom amul péeféet mais bi ma xamee fi nga féet laa xam ne yow la saay-saay bu bon bi mu ne ko yaay ngande ngand pourtant loolu de daane naa ci si sa moroom yu baree bari mu ne ko amee booy dem yóbbaaleel yaa yaay ngande ji yóbbaale ko parce que yaay ngande ji dem beneen fiir bu mu fi bàyyi la parce que boo defee ne yaa gën gaay daanu nga fiir googu la ñu bëri ci munta mucc yaay ngand yaa man gaay yaa leen dàq jàng yaa leen dàq jàngale yaa leen gën ëpp loolu boobu fiir boobu ci lañ suma classe gépp ci lañ leen daanele Ah. boo góor góorgóorlu ba xam ñaari araf di ko jàngale mu xamal la ne sa njàngale moo gën a foor njàngalem gars yi yaa leen dàq jàngale yaa leen ëpp xam-xam day fen rek ah. day fen ëpploo kenn xam-xam ah. kon mu waxaat ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan mu ne yàlla ne iblis sama jaam ñi doo leen mënal dara sama jaam yi doo leen mënal dara kon kon bu bu boolee ñaari ay kon ñan ñooy ibaadu mooy almuttaqu su fekkee dafa wax ci aaya bi njëkk bi ne ñi ragal yàlla dañuy xàmmee seytaan yi ba fiir gu mu tegal ñu raxal ñu raxal fiir gi mu ñëw fii wax ak seytaane ne ko sama jaam ñi doo leen mën a dara kon jaamam ñi ñoo ñu ragal yàlla kon jaamam ñi ñoo ñu ragal yàlla loolu kon déggee nañ ko ci ñaari aaya wa nafham min majmuu al aayatayn anna ibadallahi al muttaquun kon beneen concept bees dugg si ne ci liñ doon jéem a comprendre boobu ba léegi ci kat mooy ragal ki ragal yàlla kon ki ragal yàlla mooy ki jaamu yàlla ki ki yàlla nang mu nekk jaamam ki yàlla tuddee jaamam kooku mooy ki ragal yàlla waaw ah. xam nga kooku nag kooku nag moo am mooy kooku nag mooy waaje ndax kooku la yàllay waxal yàlla nga wax ci alquran alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba eh, jaam nangoo nekk jaam lu amal solo borom bi la yonent bi salaa moo tax meloom yëpp nekk jaamam moo ko ci dàqu moo ko ci dàqal parce que xam na ne moo gënal yàlla parce que nekk jaam nangoo nekk jaam mooy nangoo nekk li nga doon dëgg-dëgg parce que ca dëgg-dëgg jaam nga jaam mooy ku mënul boppam dara te soxla lépp kon yàlla melom yi mu yi muy melal mbindeefam yi bi ko bi ko ci gën a neex jaam bi nangu ko mooy mu nangoo nekk jaam moo tax mu ne mu ne alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba la mu ne mu bi abdihi layla ba muy wax yonent bi salaasam ba muy kañ boppam ci lim defal yonent bi abdihi la ko tudde sama jaam acca Euh, kon jaamu yàlla mooy ki nga xam ne fexe na ba rëcc ci seytaan jaamu yàlla mooy ki fexe ba rëcc alam ahad ilaykum yaa bani aadama allaa taabudu seytaana waaw mu ne xanaa waxuma leen woon siñante woo moo nag yéen ne bu leen nangu bu leen nangoo déggal seytaan bu leen ko nangoo dëggal kon fexe leen ba mucc seytaane ba pare nekk li ngeen doon nangu ko mooy nekk jaam nekk sama jaam man dong ndax man dong maa leen mat sang man kese maa leen mat sang eh, gis nga borom bi eh, foofu lu jar a bàyyi xel gis nga suñ boroom bi muy indee ci kaw suuf li tax mu indi ñu fi mooy làmb ji mu nar a tëgg ci kaw suuf mu nekk làmb joo xam ne dëgg ak fen ñoo ciy bëre dëgg ak fen ñoo ciy bëre mu bëgg doomu aadama farak làmb dëgg ndax làmb fen moom Iblis samp na boppam ba pare ne moom moo fay champion moo tax moom samp na ko pare moo tax yàlla léegi ku ko bëreel ci geneen làng gi la bëgg loolu làmb jooju ni muy déroulé ak li ci a xew yëpp borom waxtu nettali nañu ci alxuraan ci ay béréb yu bëri am na bii béréb bii nii bi may bëgg a jàng nii ci sortu xijri wa id qaala rabbuka lil malaayikati inni xaaliqum basharan min salsal mu ne fàttalikul keroog bi ma waxee malaaka yi ne leen inni xaaliqum basharan min salsal min xamayin masnun bi yàlla naree tab nit ngir mu bëri ci làngu dëkk lim njëkk a def mooy binde ko ci ban te bi mu bi mu koy bind ci ban da ko yëgle da ko yëgle dafa wax malaaka yi ne leen bis ni ki tey décidé dinaa bind bachar maa ngi koy bind min salsal salsal mooy ban ban bu lakk ba nëb ban bu nëb lakk ba ñuul ko soo ko tëggee muy mooy ban bi ñuy defaree ndaa soo ko dóoree daan teng keng loolu mooy salsal yàlla ne ci ban boobu ban bu ban bu ban bu xeebu boobu nga xam ne ban bu nëb la bu lakk ba ñuul ba wow boo ko tegee mu naan keng-keng ci laa bind basaran ma bind ci basar min xama <coughs> ba tey ban bu lakk ba ñuul shukran mu mel ni malaaka yi dañuy jot information bi mu mel ni dañoo jógoon bëgg dem mu ne déedéet toog leen fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi fa qaw lahu sajidin informé leen pour informer rek dama bëgg ngeen toog as assisté ko attesté ko toog leen xool ma bind ko ba sottal sul ci ruu sol ci ruu ba mu ba mu noyyi ngeen sujootal ko ngeen félicité ko kon malaaka yi borom bi yëgal na leen ne def nar def lu rëy rëy mooy binde ku ñu tudd bachar baatu bachar nag baat bu am solo la bachar ak insaan wax naa li ñuy tuddee droit de la femme ñeneen civilisation ñoo am problème la jullit ñi amuñ ko jullit ñi amuñu problème droit de la femme parce que jullit ñi lislaam nit la xam xamul góor nit la xam nit mooy góor wala muy jigéen góor ay jigéen ci lislaam mooy wuute liggéey donc kenn ku ne am na lu mu gën a man lislaam ne ko def ko waaye ñoom la yemale ndax lépp loo xam ne ñoom ñaar man nañ ko bu ko ci kenn defee lañ ko ciy fay bu ko kenn ki defee loolu lañ koy fay misaal mi mooy bi ñoom ñaar ñëpp mënee julli li ñuy fay góor ci julli tibis la ñuy fay jigéen jigéen ci julli tibis parce que ñoo yem mais nuroowuñ moo tax nuroowuñ parce que bokkuñ lu ñu leen sant te kenn ku ne dañ laa bindee luy tax nga mën a def li la sant loolu rek la donc amul ségrégation ñoom ñëpp bachar lañ bachar insaan baatu insaan du góor du tekki góor de insaan nit lay tekki du tekki góor loolu moo wutale l'islam ak la civilisation occidentale xam nga occidentaux yi góor lañ xamoon xamuñu woon jigéen homme lañ xam om homme om góor lay tekki du firi nit du tekki nit moo tax bi ñu demee ba jigéen ñi fippu wala bokk jigéen sax fippuñ ñoom ñoo dem ba soxla jigéen ñi génn kër yi ñëw ci ñëw ñi ñëw ci industrie yi pour ñu exploiter leen parce que la main d'œuvre est moins chère tubaab bi duñ nit tubaab tubaab sont pas sérieux la révolution industrielle lan moo ko jur mooy bi nga xamee ne grande euh, Angleterre découvrir nañ charbon charbon bi nga xam ne moo moo déclenché la révolution industrielle parce que énergie boobu matt amu ko que charbon benn matt la bu bu rënk woon ci suuf si ba ba xëm ba ba ba dafa bëri dafa bëri fe dafa bëri énergie moo tax biñ ko turee lañ turee lañ turee saxaar parce que lu jiitu lool saxaar yi ëpp saxaar yi matta matta ko daan baxloo parce que saxaar du dara lu dul fermer benn ndox ci benn béréb boo xam ne bu baxee du am fu mu génn mu mu mu boo ko tegee fu glissé day déplacé loolu mooy théorie donc euh, ñu ñu bi ñu turee bi ñu turee industrie main d'œuvre góor bi cher ñu bëgg main d'œuvre moins cher ñu ne léegi nañ génne jigéen ñi ci kër yi indi leen ci industrie loolu mooy moo libérer les femmes est-ce que loolu libération la waaw exploitation c'était pour ñu fay leen lu gën a tuuti li ñuy fay góor yi te ñuy liggéey li góor yi ñuy liggéey te loolu barki dem ba léegi bi woon ba léegi Sénégal gii barki dem dongul la fi salaire góor yi jigéen yem parce que bokk na ci liy wutale salaire mooy indemnité yi góor jigéen ndaw ñu amul indemnité eh, amul amul jigéen ndaw ñu am moo tax seen salaire da daan tuuti parce que salaire yi ñaari li koy tax a mooy indemnité yi góor ñi rek ko daan am jigéen ñi daawuñu ko am loolu euh, ségrégation la moo tax bi fi soxna yi wax ne dañuy dañuy indi euh, seen kii boobu ah, émancipation bi waaw émancipation dafa bari ay facettes dafa am facette autorité parentale ñuy demander autorité parentale boole ko ci ma ne mais autorité parentale amul rapport ak droit de travail amul benn rapport yéen problème bi nga am problème injustice la c'est-à-dire dañ leen a yemalewul ak góor ñi ci salaire yi bon d'abord du ñu leen fay lu toll li ñu fay góor mun leen a jël en seen jëkkër yi te seen jëkkër yi dañuy jël en charge seen jabar yi donc loolu injustice la su ngeen ko kaasee dañ leen ciy jàppale mais du du ba lañ leen koo jox ngeen nekk kilifa ci kër gi <laughs> amul rapport <laughs> amul rapport loolu ay pexe la ñu def parce que toi bi dañuy jaare fi pour dañ ne jigéen ñi il faut ngeen revendiquer droit euh, autorité parentale c'est-à-dire kër gi bu paa bi nekk kilifa gi yéen ñaar yee yéenay nekk kilifa xoolal lu compliqué noonu benn entreprise boo xam ne ñaari patron la am amul musta am ci àdduna bi entreprise bu dox boo xam ne ñaari patron am te ñaari patron yëpp yëm droit amul yàlla sax wax na ko yàlla nee na bu fi ñaari yàlla nekkoon àdduna bi yàqu parce que bu yàlla léegi mu ngi doon xiin sànq bu fekkoon benn yàlla bi moo bëggoon taw beneen bi ne ko bu tawee nag benn yàlla bi neen ne taw taw jot nañ ne beneen bi ne ko non taw jotul ñaari possibilité mu am ñaari yàlla yi wax dëgg loolu mënut nekk ñaari yàlla yi mënuñu wax dëgg parce que mënuñu taw ak ñàkk taw mënuñu ànd donc benn yàlla bi moo wax dëgg kon yàlla bi wax dëgg mooy yàlla beneen bi du yàlla moo tax yàlla ñaari yàlla mun a ah mënul am. la même chose amul benn entreprise boo xam ne ñaari patron ñoo fay am droit mu dox du dox biñ bëggee tas kër yi lañ wax jigéen ñi nañu nekk kilifa yi ci kër gi comme góor yi li ci gën a simple mooy sa doom dangay am doom moo am juróom-benn at nga am yéene dugal ko daara si yaayam mbañ xam nga jigéen ñi dañu ma yërmande bon dañu dañu bëri yërmande yàlla moo leen ko def parce que yër bëri yërmande googu moo tax moo dëppoo ak li leen sas dañuy mën a yërëm xale moom duñu xool luy suba seen yoon tey rek la ñuy xale bi kii xale la bi frais yàggut vraiment dafa soxla affection sama sama affection ak sa bos nga yóbbu ko ci daara ji mu mu muy souffrir foofu di di feebar du ma ko yëg moom mun naa xiif duma ma ko yëg daal di jooy su ko defee boo dof dof du dem <laughs> su ko defee boo dof dof léegi nag su fekkee nag daf ci am droit nag léegi nga xam ne bu la nee man su ma sañoon doo ko yóbbu daara ja nga ne ko man daar laa ko yóbbu mu daal mu porté la plainte ñu ñu ne la doo ko yóbbu xam nga du sa doom yi duñ jàng te gis nga gis nga droit de l'enfant amul complot bu gën a garaaw bu ñu defal humanité que droit de l'enfant parce que droit jox droit ku xamul intérêt ku amul information sànq ko la jox droit ku xam ku amul information lan mooy moo juddoo ci droit boobu sànq ko la xale yi ba ñu leen dugalee ci droit yi la la dëkk bi tas xoolal France ki dem liñ mujj mooy mooy di xas way jur yi ne dañoo yarul seen doom te ñoom ñoo aaye way jur yi ñu yar doom yi am na benn france bu leen ko wax ne leen non mais bu leen ñu tudd yéen yéen ñu dem bi ma demee France am na benn mbokk bu daan ma daan déglu ci émission yi mu mu woo ma ñu gisee mu mu jaaxale trop ndax doomam problème bi mooy doom yi mun leen yar foofu France benn doomam dong boo xam ne da ko da ko yee fajar pour mu julli fajar doom ji boole ko police <laughs> nee na dama toog rek ñu police fëgg ma moo ubbi mu ne ma ñu ma est-ce que fii la diw dëkk ma ne waaw mu daal ne fa jag génn ne ma maa ngi ni maa ngi ni moom ma ne leen lan la ñu ne yow na il faut le laisser tranquille pourquoi nga koy terroriser di ko yee fajar moom du bëgg a nelaw comme ça waaw <laughs> aja rek bon waaw c'est compliqué ah ñoom ils bon malheureusement nag léegi ñun dañu koo wàllu ñun ñun ñuy tubaab tubaab ñun ñu kenn aayowuñu ko ñun ñoo koy farataal suñu bopp moo tax da wax ni ñun léegi depuis quelque temps ñun ñëpp ah ñun ñëpp yaratuñ suñ doom yi dañ leen di yor dañ dañ leen di yor mais yaruñ leen moo tax xale yi ay con lañ kon dañoo koo ragal buqat bari ba man dama leen yërëm ndax dañoo boole ragal ak ñàkk xel ba pare jëm ci àdduna bu compliqué bi dara dara xamuñ ko dara xamuñ alors donc euh, kon loolu parenthèse la mu mu boon pour wax ni kon euh, doomu aadama yàlla ci ban la ko bindee te ba nga koy def koo wax malaaka yi ne leen euh, toog leen xaar ba ma bind ko ba sottal ba sol turu ngeen si jot fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun malaaka yépp a sujjóot illa iblis iblis bokkul ci malaaka yi loolu istisna munqati lañ ko tudde ci naxu ah, ñu mooy ne eh, nit ñëpp ñëw ba mu des xar yi xar yi bokkuñ ci nit ñi mais loolu man arab da koy waxe iblis alquran wax na fee kaana minal jinni abaa moom dafa bañ iblis ne moom dus doon aba ay yakuna maa saajidin nee na moom du sujjóot qaala yaa iblisu yàlla wax ak moom yàlla wax naa ak moom yaa iblis maa laka allaa takuuna maa saajidin iblis lu la tere sujjóot qaala lam akun li asjuda li basharin xalaqtahu min salsaalin min hama'in masnuun man du man maay sujjootal loo xam ne kenn nettaliwu ma ko maa ko fekkee bi koy bind léegi ci ban bi ci ban man nga bind ma safara man sama maam safara la moom maam ban la ma koy sujjootal qaala faxruj minhaa fa innaka rajiim génnal sama palais dégradé naa la nangu naa immunité yi ma la mayoon nangu naa ko parce Iblis ko amoon ay responsabilité la ci palais bi misaal misaal rek la misaal jàngale la wa inna alayka laana ila yawmi diin ba yowmal xiyaam koo tooñati sañ na laa toroxal lu jëkk li lii kenn du la laal parce que maa la joxoon immunité immunité parlement par léegi nag koo to koo tooñati bu la ëppee doole mën na laa toroxe inna alayka laana ila yawmi diin qaala rabbi fanzirni ila yawmi yubaas mu ne ko yàlla d'accord toroxal maag xas maag génn ma pare c'est pas mon problème leen rek laa la ñaan may ma ma toog fi lu ma neex def ba ba ba ba dekki jox lu la neex nga def waaw xoolal li mu wax an fanzirni ila yawmi yub'athun may ma ma toog fi lu ma neex def ba dekki jot lu la neex nga def yàlla ne ko fa innaka min al munzarin waaye ila yawmil waxtil maalum <laughs> iblis da doon jéem a nante mais xam ne yàlla gën a nante waaye yàlla mooy ngant daf ne ko may ma ma toog ba dekki xam nga bu yàlla ne woon waaw rek iblis du mos dee yàlla na ko danaa la may dele mais ba dee jot ba ñëpp di nga dee ba bon nga mos dee ila yawmil waxtil maalum qaala rabbi fa bimaa axwaytani la uzayyinanna lahum fi l ardi wala uxwiyannahum ajmain léegi nag comme accord am na d' accord nga ci ma ma nekk fi di di def lu ma neex di yàq maa ngi la koy wax léegi du ma ko nëbb la la la uzayyinanna lahum fi l ardi danaa leen won bépp xeetu taar wala bànneex ci kaw suuf buy tax duñ la déggal duñ la faale wala uruyannahum ajmain danaa leen bewloo ñoom ñëpp iblis ci boppam moo xam ne loolu mënalu ko ñëpp moom moo tax illaa ibadaka illaa ibadaka minhumul muxlasin ba mu des sa ñi la jox seen bopp ñooñu moom mënulu ma leen dara kon ñooy ñi ragal yàlla ñi nga xam ne ñoom ñooy muxlasin yàlla ne ko comme xam comme xam nga ko baax na comme xam nga ko baax na kon nag qaala hada siraati alayya mustaqim yoon wii daal moo jëm ci man mi leer nañ inna ibadi laysa laka alayhim sultaan ñi ma jox seen bopp doo leen mënal dara illa man ittabaaka min algaawin lu dul yambar yi nga xam ne foo leen fekk jël yóbbu leen ñooñu mun nga leen yóbbu wa inna jahannama la mawciduhum ajmain ñooñu nag jahannama laa leen jox ràndu yàlla nañu ci yàlla musal lahaa sabaatu abwaab jahannama juróom-ñaari bunt la li kulli baabin minhum juz'un maqsuum mboolem xeetu band yi mboolem xeetu yambar yi yambar bu nekk ak nature am na porte bu dëppoo moom jahannam fa lay dugg yàlla nañu ci yàlla musal kon gis nga wanewaat nañ ne kon baatu ibaad ak baatu taqwa sorawuñ ñi ragal yàlla ñooy jaamu yàlla yi euh, ñaata euh, cinq mu waxaat feneen ba tey ci fu muy gam diggante jaam ñi ak ñi ragal yàlla loolu mi ngi nekk <coughs> maa mu ngi nekk surat euh, al isra aaya juróom benn fukk ak benn juróom benn fukk ak lan la wa id qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblisa yàlla ne fàttalikul keroog bi ma waxee malaaka yi ñu sujootal aadama ñoom ñëpp ñu sujoot illa iblis ba mu des iblis xaala iblis ne a asjudu li man xalaqta tiina est-ce que man maay sujootal koo koo bind ci ban gi xoolal xaw xamadi gi mu waxe a asjudu est-ce man est-ce que man maay sujootal ki nga bind ci ban a asjudu li man xalaqta tiinan xoolal xamadi gi yàlla ne ko xaala araytak hada alladi karamta alay moom iblis ba léegi mooy mooy araytak hada alladi karamta alay la in axartani ila yowmi alqiyamati la axtanik la axtanikanna duriyatahu illa qalila gis nga léegi laal gis nga yow iblis mooy waxal yàlla de gis nga yow déglu bu baax li may wax gis nga kii nga jël teg sama kaw kii nga jël teg sama kaw soo ma fi bàyyee reyuloo ma ba yowmal xiyaam laaxatan ni kan na zuriyatahu ila qalil danaa moccet wàcceet njabootam gi ba mu des tuuti ñoom ñépp fi ma jëm la ñuy yàlla tontu qaala fadhab demal demal demal boo mënee demal waaye fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'un mafuur ku la ci déggal ci ñoom yaa ñoom yéen a ànd dem jahannam wastafzis wastafzis man istataata minhum bi sawtik mu ne ko ah, këfal këfal ku la neex ci sa kàddu këfal këfal wala yóbbaaleel ku la neex ci sa kàddu mooy tëggal defal euh, or créer ay orchestre tëggal ay soirée bi sawtika la ko wax mu ne ko këfal koo mën këf ci sa kàddu bi sawtika wa xaylika wa rajlika këfal koo mën a këf ci say ci say say say orchestre wala say gendarme wala say policier wa sharikum fil amwali wal awlaadi wan leen bépp yoon wu gën a gaaw ci maye ay doom ak alal ju lewut ak doom yu jubut boo paree wayit ku dig leen lu la neex euh, parce que Iblis problème boo lay du yem ci parce que pour mu pour ñu mën koo dëggal dafay dafay dafay daf ñuy rassurer daf ñuy rassurer moom la yàlla na ko waayit ku waaye nag wa maa yaiduhum sheytaanu illa xurur yàlla ne su ngeen sàgganee ba mu dévier leen ci ay orchestre am wala mu tiital leen ci ay gendarme am wala ay policier am wala fexe daal ba ngeen def lu bokkule loolu su ko manee nga def d'accord daaj bu bu bu leen mënee woon ay yoon yu ngeen di jaar ba am ay alal ju lewut du bëree bari am ay doom yu bëree bëri même buñ dul doomu yoon loolu bu ko mënee na ko def bu ngeen ko ko nangulee baax na bu paree waayit na leen dig lu mu leex waaye li ma mën a waat mooy lu mu leen digg day fen fii moom lu mu fi wax day fen parce que contrat bi foofu la yem yàlla ma wax de yàlla ne contrat bi fii la yem Iblis lu mu wax fii dëgg la mais fee day fen fee lu mu wax te problème bi am mooy fële la fen <laughs> problème bi am ak Iblis mooy daf ñoo xamal ni li ñuy saay saay saay saay lañuy dem xoolal ni dem àjjana yombe Sénégal xoolal ku dee rek dem àjjana fii Sénégal fii waaw moom benn si Cheikh da ko daa wax si Cheikh da daa wax ne dëkk bu naqaree dunde la ndax dañ lay seetaan noo mën a mel ñu seetaan la kenn du la jàppale mais dëkk bu naqaree dee bu neex a dee la ndax ku dee dem àjjana loolu wóor na est-ce que noonu la yëf yombi ma defoon ne jàppale nit fii gën a yomb jàppale nit àllaaxira en tout fii moom yaakaar naa jàppale fii nit moo gën a yomb mu ne lu mu leen wax fii day fen inna ibadi laysa laka alayhim sultaan wa kafa bi rabbika wakiil li ma lay wax daal mooy sama jaam yi moom amuloo ci ñoom benn pouvoir te mooy ñi ma dénk seen bopp fii ci àdduna danaa leen aar ba doo leen mënal dara kon incha allahu euh, foofu lañ yemale bi tey bi di wax ne incha allahu euh, tey lañ doon jeexal juróom benneelu bërëb bi nga xam ne ci la alquran di firi ñan mooy taqwa man mooy ragal yàlla ñambaasaale nañ ci ay xeetu aaya yoo xam ne day wone ne ragal yàlla mooy jaamu rek mooy jaamu yàlla ragal yàlla mooy jaamu yàlla rag ki ragal yàlla mooy kii nangoo ki nangoo jaamu yàlla loolu ay yi ñu jàng nii wane na ko bu ñu fi dellu seetee danañ gën a yaatal loolu ndax baatu jaamu borom bi daf ci waxtaan ak ak ñun lu baree bari ci bind bi ñëw incha allah danañ ko gis ci ay aay yu baree bari nga xam ne waxatul ak ñun ci ragal yàlla may ci jaam rek lay wax yéen jaam yi yéen sama jaam parce que naa bi ñu xamee ne jaamam ñi ñoo ñuy ragal yàlla yàlla nañu yàlla boole ci ñuy ragal yàlla yàlla nañu yàlla boole ci ñuy ragal yàlla salaamaaleykum